an param to e lambo to e weybati agge goo taway kaɗo waɗa way aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaan di ñu déglu ñu ngi ci seen 24 actu eh, dellu siwaat fii ci kër Serigne seex Fall Mbawor ngir fas yéene seq ak moom jataay yi nga xam ne nit ñu bare bare bare wax dëgg yàlla dañ ciy gindeeku di ci am mbégte lool ci taxawaay bi ak wax ji nga xam ne daf ci yee ñu bare bare bari tey ñu dellu siwaat nag ànd ak sunu site bi fa yéene fee taatan ay kàddu yoo xamante ni dafay jëm nag ci jamono ji nga xam ne nag fi ñu toll yaakaar naa ne war na noo wax ci réew mi ak taxawaay yi nga xam ne ñun ñëpp ku fi waaye am nga ci responsabilité sëñ bi ñu jox la kàddu nga nuyoo incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm ci seeni taxawaay di ñaan yàlla defal nuyu xéewal saxal na ci taalibe sotti jàmm ci réew mi nu bokk noonu ñëpp sëñ bi ñu ngi lay sant ba génn nañ année bi nga xam ne mooy deux mille dix huit dugg ci deux mille dix neuf. lan nga seetlu ci réew mi ci wàllu euh, doxalin yoo xamante ni bu fekkoon dañuy jàkkal ab toogaay da ngay wax ne war nañ ko kii li nga xam ne tamit wax dëgg aw doxin la woo wu rafet la wun war a soññee yan nga ci seetlu ci at mi. waaw man de sax seetlu daa ko jot a góoroon jëmee ci côté yooyu fi ma ko jëmee daal mooy xool ni taalibe dox a am réew nag ku ko fu nekk jàmbur yi sama bopp mi ngay bëgg mu ëpp ci xam nga mas nga fi wax ci waxtaan woo nee naa la woon am na ci yett yooyu bari nga jigut ñëpp hmm. am tooba bar ca pepp laan du jur jàmm ca tool jigéen bar ca góor du du jur du jur jàmm ca ngoro ga am réew bar ca boor yi du jur jàmm ca réew ma hmm. fi ne course bi daal course daal toujours dañuy tànn fas yi daw waaye duñ ne dem leen daral ga jiital gétt ga ñu ñëw daw course bi ndax doo xamu ci raw feefalaa nit xaj yëpp yu bare song benn xaj bu jigéen waaye bu yeewi ko amee bu ci ku ci ngénte yaa tooñ ndax doom gis nañ ci at mii man seetlu naa lu bari seetlu na na at mi dey bari na ci lool ci wàllu accident ci wàllu ñoo xam ne dañ lay fekk sa biir kër ñàkk sécurité ba ci Touba gi daanaka am na fi lu bare bari ak yeneen i réew yeneen ci dëkk beeg yooyu loolu lan nga ci wax loo sabab ne moo ko sabab. xanaa coobaral yàlla mu dogal ne kooku ci noonu lay faatoo ndax at yi dee yu bare fii ne at yi judd yu bare yoon da ko jiitu ndax judd gaa taxaan dee soog a mën a. xaalaxal moo tax laayat rëyuñu fi ku ku dund doon rayin wi nag moom li li ma ci yoon nag mooy daal ak jullit daal bañ ko diggee daa am nu a lislaam santaane ko wàcc sa bopp nag ba dugg ci loo xam ne da nga da ngay tuddoo jullit ba noppi di wax ci mbedd mu eh, bu wax la waxee turoo du turoo du doon turu yéefar jullit lay doon alal ji nag bu leen gënalee bakkan nit ñi loolu seen digg ak yàlla ba min xotti la daal ngi ci téere bi te ku ci faatu yàlla dana lijjanti nam nam nam xewe sécurité moom mi ngi tàmbalee ci kenn ku ne fexee jubal sa bopp jubal sa njaboot waaye yafal ba noppi te yëroo moom bu màggee di ponkal lu def ëllëg nga euh, mi ñu ngi jub ku nekk xam na ne bu dee ci yeneen réew yi sax jaaxle yu bari du ci am waaye réew mii yow élection fekk na la fi yii a ñëw dégg nga rajo beeg télévision yi waxin weeg yu ci bëree bëri ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi sax boo demee ensemble xeex nan fa fu nekk barki démb bi ñuy déposé seen ki kii ñi ngi xeex ak yooyu loolu ndax am réew war ngeen ñëpp war na noo noppi rek di seetaan ak ñi war a jiite réew mi ndax melawu mel noonu lan war a mel. loolu de xam naa ñi nga xam ne bu ñu waxee dégg seen wax te it bu ñu waxee nit ñi ñu gar ci seen bakkan moom jooju wax la intéressé ñoo ca war a wax a a liggéey ko war na añum togg añum sa mbokk classe yi ñangeen yi mën a lekk lañ bëgg waaye jóge ci élection ba alak ju tàng ah, waaye loolu sëñ def ndax fi ñu boo xoolee ba ci fii ñu toll candidat yu ci bare bari dañ leen a rocci ci loolu ndax am réew duñ ko tëral ci organisation yoo a ñu ñu xañ ko loolu ndax du indi musiba ci am réew. xam nga pouvoir yëpp bu ca libre amee kii po po ab kilo dafaa nekkaale ñëpp ñëpp mënuñoo dëkk ci libre ñu jub ñi daal a libre ñu dëng ñi ñoom ñi fi reen leen ndax am réew boo dama leen toujours ku bégal saay saay daal jooyloo ñu baax ñi dañoo lu ci ne daal dañ ko war a tànn ci ngor ak ak yiw ak teraanga ka war a am xam ne yàllaa ko may bala yàlla mayet lu yàlla moomal boppam ndax nguur moom yàllaa ko moom xul yàlla maalikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tanzihul mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadiir dañ ne moo koy jox ko ko neex mooy fal ko ko neex moo koy boo koy jëli da koy foqar ci jagam koy jëli tuutil mulku man tasaa nag tuhisu man tasaa lay ànd watan sawal mulku man tasaa tusillu man tasaa lay ànd kon nag nañuy fexe ba yorin wi di jub ngay dimbali nit ñi di leen yërëm ñi koy xëccoo di ko xëccoo ci ngor ak jub waaye bu ma lekkul cere ji naa ci xëpp suuf du farata bu ma cere ji naa ko lekk man képp ci gaaya du farata ñëpp daal la ngeeki xel ànd ak seen tegeet ku ci xam nit ci nañ ci gar suñu bakkan wóoru bakkan laa gisagut fenn musuñu ko dëb ba dar ne daal nam def doomam ak soxnaam boo booy wii wii ci waaye denc sa soxna denc say doom yabal la ca mbedd ma nga dima xeexale ko xulal te bis boo faloo dootoo ma jot sa numéro bu appareil moom du farata da nga cee am ñoo jotut seen numéro man kay mosuma cee woo kenn ku ma ci gis sama kër gi laa la gisee te yaa ma fekk. xaw uh-huh. ma ci tegalan ci numéro du ma ko lekk ne xaw ma. tracteurs yi nag yi ñuy joxe sëñ bi. yooyu ñi ngi doon joxe fekk nañ fi yu gaari ci sama kër teraanga moom yàlla doon koo joxoon lu yàgg bi daata koo xam ne sa teraanga ci carte nga koy wut ak koo xam ne sa teraanga ci cartenal yàlla la bokk daa bokkut am na ci teraanga jot ci dereti ka ko ka ko la ko yàlla def dama leen koo xam ne bu lay bañ lay joxe bañ lay joxub xaalis mënoo ko lekk sa ndeye ko daan jël boo màggee ñi di la nuyu ba nga tëju ji te noppalu te ña lay jox xaalis lañ la jox ku fa jógee sa barab lu yor lu yor sa njaboot sa ngor googee ko keneen koo ko jaayee ku koo da nga fi indaale woon ngor. loolu du ñëpp ñoo ko xamee noonu sëñ maam. waaw ñëpp xamut lépp dafa laajte nag sara naa sa jenn ju yàlla teg lu mu gërëm amut di bu ñëpp xaman tribunal daam ñëpp noppal tooñ daam. Euh, léeg-léeg ñu ñu ñëw ñu ñëw ci sëñ bi ñiy wut réew mi ñiy wut réew mi day def bu ñuy dikk daanaka rek seen dañuy nattale xelu nit ñi. nit ñi soxla nan ay yoon soxla nan courant soxla nan ku wàññi taxi yi soxla nan ay tëli soxla nan ay forage yooyu rek la ñuy dig nit ba ci kilifa diine yi sax loolu la leen di dig ndax te doo dégg mukk ñu wax ci ci wàllu dig leen lu jëm ci wàllu maanaam diine ji dina def fexe ba daare alxuraan njàng mi baax dinañ fexe ba seen jumaa yi nangam nangam yooyu doo ci dégg ndax loolu ci candidat bi lay delloo wala kilifa gi ñu koy dig si. diine ji moom dama leen kenn diine moom waroo nekk ba nguur di la ko dig wala mu di la ko yoral kenn ku ne yaa ci war a nekkal sa bopp juma jumaay bi ko mag bi rëdd ba ko tubaab leen ne moom laa bëgg te da leen ne yàlla la nekk war a nekk ci li li la war keneen ku lay dimbali jàppale la ci dama ne benn buur bu naan sëñ bi doo julli ji ajjuma tey wala doo dugg xal wala doo jàng alxuraan amut kilifa gu ci xulóog buur daal doo lekk sa nguur gi wàcc ma ngeen xuloo te gannaaw yaa dog yoon wee yoon mu dog yoon nga bay mu bay lee nga ne damay denc sama mbay mi fii lekk si sa moom loolu cee def yaa tooñ pooxa ñaan la baaba daal picc mu béy noonu lañ koy wax waaye deesu ko wax ko yor ëllëg wala ngóobaan ne ca tool ba. sëñ bi ak eh, sa sa xam-xam ak ci sa xamam réew xam yàgg fekke lii élection yi sa xel dal na ci lool lool ne li ciy njëkk moo ciy mujj. sama xel ci lim dale mooy élection yëpp fi la fekkan yàlla te yu jeexit fi la koy bàyyi te musal ci loxol yàlla la nekk te ñem nar a aar dana leen aar te fa musal nekk misil jotiwu kon daa élection yi doo ci wax dara moom doo wax dara ci ci wàllu artu candidat yi fi nekk ak nguur gi fi nekk ak ak ñi nga xam ne ñooy citoyen nga xam ne yow teg nga sa bët ci palais ca kii ba ñuy saagante ba àgg ci xeex. nga waaw xam nga dafa lu ñu war a wax moo ca war a wax. kin jiite ci sunu wet. lu ñuy wax ci wet gi moo ko ci war a wax lépp nag gan ba mu nee ci loxol yàlla labbayka laa sarika laka labbayka innal amda wa nimata làkka wal mulk ku ko ku ko ku lànk neegowu ko làkka wal mulkut bu ko neexee ne inna lii inna bu la neexee ne lii yàlla moom mën na ne lii ah xam nga ko boo ko néew làkkaat bu ko neexee ne lii waaw ndax li ko naan làkk moo ko ma woon boo ko néew làkk nag sañ na ne lii moom maa moom <laughs> xanaa député yi sëñ bi da nga cee kii maanaam li nga li ma la laaj nii ci candidat yi nekk ci di xeex ci digg tiir maanaam. député yi man xawma te mat nañu téeméer rek nangam te kenn ku nekk jikkoom xam nga bokk jikko yóbbuwu leen fa euh, fa pale ba bokk ku ñu watee lit yóbbuwu leen fa dañ ne nas ak nocc lañ fay def bu kii nasee xel mu ka ca des nocc ko bu kee nasee xel mu baax ña ca des ànd ci ñay nas nocc nag gannaaw man bokk nu fu nekk assemblée musuma faa jaar du ma député bëgg na nga nettali géntug jaam rek lu xar bi lañ cub jaam nag dama ko munta def wax dëgg yàlla Ila Touba bi ñu ne sëñ Touba lan ko fi defal ak def ko fi yow lan nga ci wax. loolu sëñ Muntaxa mi fi toogal sëñ Touba ñu ne ko yaa moom Ila Touba ak ki ko doon def ne sëñ Touba ko defal loolu ci rumpu laaj ko ci seen diggante ñoom ñaar. ak yow mi ci dawal sa oto sëñ bi de sëñ am nga oto nit man awma oto bu ci dem den sañ laa sañ ci tëli yëpp di dawal ci fay yow mit fii ne boobu oto bu ci daw da nga dugg ci oto mu jaar ca di tëli moom bàyyi luñ ko fi borom oto yi béréb sangam laay wàcc ak ci tëli bi euh, léegi <laughs> ñu ñu ñëw ci ñu ni ñuy politique yeeg yooyu waa Touba lan ngay wax ñoom ñu politique bu fekkee bu aay woo leen ko nag daal li ci jaadu moom nun genn kilifa lan moo fi war a wax ci war xam lan war war a wi wërta wax ba noppi waaye nag topp ci wërta wax keneen waxaat teg ci kawam kenn dénk suñu lépp daal nit daal boo ko dénkee sa àddina ak sa àllaaxira la wax da doy la def nga jàpp ci waaye bëgg koo dénk lii ba noppi bu waxee ba noppi nga ne nañ ko seetal wax sa xalaat moom ci sa waxi bopp nga ko war de waaye wax sëñ bi wëritu ko ko ba noppi weddi waxam ak bu ko waxe woon nii ak bu ko defoon ne yonante bi daal yàlla da ko ne woon bu la neexee del diisoo ci loo dogalagut fay saa asamta nag fa tawakkal àlla laay loo dem ba dogu ci nag xamal ne ànd na mag yow te maa ca maa ne ca biir waaw te bala a dogu da ngay dëggu waaye koo xam ne sa poose fii suñ nga mer wala dañoo jox sa morom lu joxun nga mer loola moom koo ci mën di mer du yoon wi du diine ji du lislaam ji sa digg ak ña ngi ko séq la ñii di wootee réew mi kan nga ciy man sëñ Tuubaa laa àndal déet woon sit sëriñ si citoyen lan daan lan ca tegoon sax waaw waaw citoyen moo ci nag fi mu seet la ko la dalum xelam mu ne ca bañ a woote déet néew la bañ a woote seet la ko ci àndal te man kay laajuma ci man kay xam naa ne sëñ Tuubaa moom yaa ngi ci kii ñii di xëccoo réew mi laa wax. kay xëccoo réew mi moom la ñuy xëccoo du sama alool moom ma ko ku ko ci yàlla jox nag ànd naa ci ak ku ciy gagné ñoom ñii ko jàpp na moo ciy gagné. bu yëf yi rek koo dégg ñi liste yi ëpp ci moom xamal ne moo gagné. man kay loolu la dama laaj bi kay jiitu na loola laaj yow kay laaj la maa laaj fu doon laaj boo xam ne ñëwagul. natt asaka mbay mu ñëwagul laa mënut Euh, euh, léegi kon ñu ñu ñëw ci kii bi ñu ñëw ci jëm léegi ñu ñëw ci Touba bis bu nekk nga dégg ñu naan sancaan yi nañ leen dimbalee sancaan yi danoo soon nag ñiy politique sax sancaan yi la nii kii ndax dëkk bi tamit nii nga gisee ñu dëkkin wi ñu dëkkin yi yow am nga ci benn xalaatam nit sancaan moom xam nga sanc rek mu daan neex ci bis bu ta nekk wa mag ñi dañ daan wax ndar xëyut sotti maam sunu Ibrahima ba mu sànnee saarata aajara ca Màkka dana bi waa din xayra si sarin ñu ngi ci indi ci àll bu dara nekkut wut sañcaan nag fu mu bu fa nee sëcc dara fekk ko sañc moom dañ ne sëcc la laaj ñiñ fekk si nag la tax ñuy fekk si leen nañ leen ci jàppale ku bàyyi dëkku maamam bàyyi dëkku baayam fekk si la la nga la sa bàyyi gën a baayam maamam gën sa maam gën ko maamam da nga ko koy woon ñoom it nag nañ toxoo bàyyi fa bàyyi fa dëkk ba ngir seet si ne dëkk bi yee gën jikko yu bon yee yee nekkan ci dëkk ba nañ ko fa bàyyi buñ koy ndaale ci dëkk bi si politique ci dëkk bi loo ci wax loolu moom sëriñ boo ca gis laaj ko lu ko lu tax mu dugg ci nga mënumaa nett li géntug jaamur li ma nekk daal laa sañ a noppi teg ci politique yow xam nga sëriñ daa diggante sëriñ lu ca war a topp. ma ne wax dëgg yàlla élection yi dama cee am tiitaange ju méttee méttee ak li xewoon ci fii ci élection yi passé woon Touba lu toll nii ma àggale sëñ bi joxe amoon ci Touba nga xam ne noo yàq urne bu mel ni Touba nga xam ne citoyen la comme ñëpp ñu war fee gis ay teggin ñu gis fi loolu ku fi dëkk loolu man bokk naa ci ñi amu naqar xaw ma nag naqar ne ñëpp wala déet. loolu moom damaa xalaat ne gannaaw luy ñëw te egg la kiñ koy defee ci dëkkam balaa yegg dana joxe ndigalal nañ yem fii ak nañ mel nangam ka ña koy defit ay gannaaw autorité la ñuy àndal autorité yi nag dañoo war dañoo war a jàpp ci li ñu war a jàpp ba lépp teg ci yoon doon autorité ba na bàyyi ba au tout moo dul farata moom. ñu kon ñu ngi lay sant ñu jox la nga tàggoo rek xam naa <laughs> waxtu bi <laughs> jeex na ma bëggoon daal ñu tontu ko yi ci bari xam naa tontu yi dañ koo kii. <laughs> tontu naa koo isaara rek. la nga bëggoon la ko laa la waxut tontu naa la. déet ah gannaaw li ne fi man laa la mën a wax gannaaw fi bu ma la tontoon la nga la nga defee ne moo fi yow du tax fi ne sa kumpa jeex ju góomburul faju jot wér mbuus ma ngay dencee nga xamul dugal ci lii <laughs> ren gerte a jiwu am na ren ah, yaa ngi fi de ren fi la la fekk te doon nga ci wax te yaa ngi dëkk wetu gaar bu ndaw xam bu jiw ah, bayut bayu ma kay yow mi doon bay boo bayut na kon soo yoon nekkul ci jiwu bàyyil bàyyil bu jiw yeeg ñuy bay ku bayut du baase du am ñeex moomu kii. Ah, fi ne lekk nga baase di yéy nga caaf lekk nga baase lekk maafe gerte yaa ngi koy am yow bu ko fii amut woon nga jëli ci tige dege jey am marché jaww bi mosoo tàggoog moom. <laughs> waaw na kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax la nga tàggoo. <laughs> jaajëf sant gërëm rek di ñaan yàlla defal nu xéewal eggaleel sëñ bi yéeneem ji mu bëgg te yéene ji sëñ Touba moom sëñ Touba koy eggaleel boppam ndax da ko ñaanal borom rabbi staji waltu kammil maa nawaytu la daa tuubaale te bi katum naa fi ka bun yaana te bi mu ko ñaanee ba nag nag istajib daxwati bi maa faaxa saani wa bi maa faaxa rabbi kulu sunoni yaa man ajaaba man istajaaba ablil hijaaba fii sani daay yooteem yooyu daal yàlla du ko du ko gëmm-gëmm lu du ko tëx dana ci wuyu nan ci yàlla defal nu fekkee lépp te yàlla defal nu positif may nu a ñaan rek laay ñaanal fan nu gudd wér gi yaram wërsëg fan nu guddee fekke tax a fekkee lu bari wéree tax lu ñu woote nga mën a wuy ji wërsëgay tax luñ laaj nga mën koo joxe nan ko sëñ Tuubaa Cheikh Ibra defal jërë ngeen jëf amiin amiin eh, mbokk yi jërëjëf yaakaar naa ne tey déglu nañ sunu jotaay yi nga xam ne amale nañ ko fii ci kër sëñ Cheikh Fall Mbaor ñu sant ñëpp gërëm ñëpp joxaat leen daje ci fan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ɗum wagen param to i lambo to i weybati agge goo taway kaɗo waɗa way mustafa amud la jamba way